my name, guy. Follow my, follow my name, guy. Follow my name, guy. Nanko legi day, way. Papa mlaja na nyanko, yo khana kiso nyanko. Yo po khamon nyanko, do la ke kamoy nyanko. Papa mlaja na nyanko, yo khana kiso nyanko. Yo po khamon nyanko, do la ke kamoy nyanko. xew ñi kon do tok ni ko mag lay gekkantoo ñàkku bëggu jàng booy rangu soot ñi nee nañ do doog ko ko li bàmbal ak meel ku ne lay so sool ñàkku ñàkku ñàkku dafa lew ba do attention attention attention addotina teelu leen ma man la ñàkk jaay xamee ngeen ma ñëw naa nag di leen présenter chaîne bi nga xamanteni ni mooy 5 TV Sénégal wala Sénégal 5.com point com topp leen ñaa ngi koy am si àddina boo ko soxlaa foofu nga koy seeti ji maa ko moom yéen moom xoolal da nga def point sénégal 5 point information yu leer aduna àdduna salaamaaleykum wa senegal hein? Ah. général Kairé la artiste comédien euh ñi woon seen sketch koor gi ma ci doon présenter ben personnage tuddou tudd Baye Guédé di len balu ak nak bu baax baax di len wax ni nit matul lépp lo xamné ci si série bi kontaan ngeen ci mu doon lu rafet te mu jub du ñun suñu borom la waye lépp lu fi dënk tamit ngeen xamné nit matul su ñun la ñu ngi leen koy jégalu bu baaxa baaxa baax di len wax nak seeni i doom lan ngeen ñaanal nu xamne fuñ tek suñu bëtt sori na lol lol lol lol te yeen rek yéen nu mëna gungé te gungé nak du leen lu dul saa bu ngeen jullee ñun ñu ngi tal suñu loxo di sa sàkku ñaan bu baaxa baaxa baax di wax ngeen ñaanal seen doom xel mi gëna macc ñu gën di leen bégal sa su nekk jërë ngeen jëf. waaw <coughs> su nekk xolé sé du quoi ñu am contente bu baaxa baax. waaw ñun ñi ngi tuddu babakar Ba waaw man ma ma ma ma ngi sax sama xol sedd. xam waaw ma ngi waaw euh, di incarné benn rôle bi ñuy wax ndaayaan waaw vraiment booy vraiment ñu ngi kontaan bu baax a baax a baax ndax yéeg-yéeg bi mooy euh, li ngay def nit ñi nit ñi nit di teg loxo di ko seetaan bay wane ni lu baax la. lan la nga incarné. bàyyi ko ok da ngaa def gannaawoon xam a loolu doon benn affaire bu bu bu mais te aussi bu bu bu neex. ndax nit Sénégal bu fekkee yaa ngi def lu sérieux lu neex lu nice kenn moomu leen dañ naan vraiment lii lu nice la lu baax la te wax dëgg yàlla ba léegi ñu ngi jot ay appel ci ay kilifa ñuy wax ni lii ngeen di def baax na kon duñ def lu gën a yokk góor góorlu yokk effort bi ba nga xam ni fépp foo xamante ne ñu ngi fay seen nit ñi nga xamante ne si ay borom daraja lañ ñu fay ñun ñu fay seen ñun ñëpp waaw vraiment ñi ngi kontaan bu baax a baax a baax di am yëg-yëgu kontaan bu baax a baax a baax ci sénégalais yi jël seen crédit di di ñu seetaan vraiment ñu ànd seeg. connexion connexion connexion. daa yow wax. ba xam ma ne yaa ngi dem bàyyi la. c'est dafa dañul bu baax. dañal bàyyi léegi xool fan. bàyyi Ousmane waxal bàyyi la. kii fan la Fouta. waaw. salaamaaleykum euh, ñu ngi nuyuwaat Sénégal yëpp di baalu àq di baal ñëpp àq. naan ak dafa sew ñu ngi baal ñëpp may gërëm bu baax nag yëpp moo dem artiste bi fu nekk di gërëm techniciens yi di gërëm Sénégal di gërëm àdduna waaw ndax euh, li yombul tey ñaan yàlla saa su ne rek ñuy fexe di dugg ci xolu nit ñi quoi ndax nit ñi moom kenn moomu leen waaye nag ku ci nekk am nga droit xool ka la neex mais xam naan daal di gars yi wax naan comme ñaa ko daa xew daal dañ jàpp ne jàpp dafa xew rek dëgg la te looloo am sax waaw di gërëm ñëpp di jégaluwaat encore une fois di wax ne gars yi presque mën naa ne yàgguma fi lool waaye wax dëgg yàlla ay bon cœur rek laa fekk moom fi ñëwee ba tey ñëpp ku ci nekk da ma jàppee comme sa bopp man loolu moo ma gën a marqué ci gars yi loolu nag loo xamante la ça me tient au cœur il ko waaw man nag Ousmane la ma doon représenté rôle jaaykatu koko bu ñàkk fayda bi rek mën a fet <laughs> maa ngi jégg waaw salaamaaleykum ah dama wax tuuti rek man la Ousseynou ah. damay wax kaw yaakaar naa li ma ci wax bëriwul sax ndax ku xool yi xam ne yàgg na daf naa ñànk bi depuis 2013 la la ko zéwal nekk lu bees te ñu fi taxu ñëpp am talent ndax ñoom ñëpp a fowe aar ñëpp a jàng dem festival def lu ne si aar kon gëm naa sax ñànk li muy zé ak tamit gu groupe bi mu àndal mën na lu raw li ñuy zé man ba tey damaa gisul ñànk original bi gisuguma ko ndax ñànku biy cof rek laa gis wallaahi ñànku bi ma xam dëggantaan su zéwee dëggantaan non kon leneen la wax quoi kon yalla na yàlla dafa jàmm da dem may len dama ah, ci barke yonti ba ah. amin yeen la ben jigen volontaire quand même ah, xanaa da les dames les dames waaw alaykum ma ngi dam daam alaykum ma ngi tuddu dam jigen ñi euh, ma ngi tuddu moy bind affaire yi dama lay présenter tout moy moy bind série yi yaa ngi wax lu am solo mi ngi wax lu am solo te liggéey bo mo gëna jafé ndax ñun buñu nekké buñu nekké di di di suivre dara moom mi ngi ci ginnaaw naan taxi bi rëcc na la taxi bi rëcc na la mhm. kon loolu yombul aussi tamit nan ko wax quoi nit bu mhm. defee benn effort bu bu nice nan ko wax daa bëggoon a nangu sama gël mhm. waxal waaw gannaaw loolu waa ji wax après dama koy jox xaalis loolu la maa ko santoon naa leen bu baax a baax ñaanal ñëpp jàmm maa ngi tudd daam an waaw di wax ne membre laa ci famille bu extraordinaire bi di wax ne gaa yi bon liggéey bi moom travail d'équipe la ñun ñëpp ñoo koy ñoo koy defandoo kii day jàpp fii kii jàpp fii donc euh, mu nekk affaire bu li tax muy gaaw parce que ñun ñëpp dañoo déggoo ñu ñaan yàlla musal ñu ci seytaane ba suñu déggoo bii nii gën a gën a law ba ba ba nekk ay jàmbaar ay farba yooyu yëpp daal ci mën a dugg incha allah donc euh, ñu ngi jox nit ñi euh, rendez-vous ci ci ci ci ci internet bi mu ngi leen jox rendez-vous ci télévision yi parce que incha allah équipe bii nii di ngeen ko am partout liggéey bi day gën a continuer instant bi dañ doon bippé rek mais xam naa bu koor gi jàllee ba ñu commencé waat lekk bu soobee yàlla dañuy dañuy woote incha hmm. allah ok li ma wax ne am na solo ah. voilà yow yow wax waaw salaamaaleykum maa ngi leen di nuyuwaat yéen ñëpp maa ngi tudd Mounas Dieng euh, ñu gën ma xamee Mounas ci biir série Ñànku yi maa ngi baalu àkk ñëpp nag ci weeru koor gi comme ni ko gars yi fi jaar waxee rek ñun dañoo saxoo di jóg ci di bëggal nit ñi maanaam képp koo xamante ne yaa ngi yëg ci sa crédit di ko jëndee connexion pour seetaan ñànku yaakaar naa ne pour ñii dañ koy dàqee koor ñii bu ñu amee stress ñànku yàlla def na mooy dindi stress su xale yi. ak mag ñi waaw ak mag ñi ah, paay mairie ñu bëgg nag ngeen gën ñu ñaanal euh, ñaanal képp ku fi taxaw te xam ne fii ñu fi taxaw ñu a bëgg. maa ngi ñaanal sama jëkkër ndaan mi nga xam ne nag dama ko bëgg te pare ma pour bokk ko kenn. macha allah waa di leen wax ne rek gaa yaa ngi nii équipe baa ngi nii ngeen ñaanoon ñu te xam ne lii nii lañ am xeebuñu ko benn yoon te incha allah bu ñuy laali ay millions ci lii lañ koy laali maa ngi incha allah maa ngi gërëm ñëpp ah maa ngi gërëm équipe technique bi ah, Nget mhm. ah, ak euh, waa Madiba maa ngi gërëm ñëpp donc euh, lii affaire bu cool la waaw lii affaire bu cool la wax dëgg yàlla di gërëm sama équipe bi nga xamante ni booba tey ñooy ànd lii li ko ko waxee li ay at yu bari la ci ginnaaw waaw togg bi yàgg na xëy na day door day door a ñor te euh, ku xam diggante euh, yaali ak ak ak xam ne loolu kenn xamul ban jamono la loolu jamonoy école yëmbal la jamonoy sant yàlla la kon bu jamono doxaatee ba fi dëgg rek mooy dëgg di di di di sant waa Jamra ndax jot woo nañ ma téléphone di di di di ma di ma di ma encouragé ci li may def donc maa ngi sàkk comme ni nga ko euh, kii waxee général bu dëngee rek euh, man ñun la dañoo bëggoon mu neex rek moo tax parentaay ñu ñu juum waaye nekkul lu ñu bëgg waaye lu ci baax rek yàlla la ndax ñun ay ndaw dong lañ nekk ci ci ci bundu affaire bi pour du jéema xool naka lañ koy mën a defee defaguñu dañuy jéem a xool nan la ñuy defee fa lañ toll nii buñ jéemee nag ba gis yoon wi dinañ def incha allah te boobaa dina neex ñoo ngi jéggalu ñëpp ñanku takk na Sénégal yéen la may njëkkee. ñanku takk na Sénégal yéen la may njëkkee. ñanku takk na Sénégal yéen la may njëkkee. nee naa bu amee doom it la koy tuddee waaye ay baaba yooyu yadu walit jërëjëf. am nga